Euh, président de la république Sénégal dafa waroon dem élection le vingt cinq février deux mille vingt quatre mais mënul nekk mënatul nekk parce que euh, bi conseil constitutionnel génne listam provisoire euh, dafa am ay candidats yoo xam ni ñu ne dañu leen dindi ou téewuñu seen candidature te loolu du yoon ñu dégg pour la première fois ci Sénégal candidat dix spoliés ñu ne ñoom dañ leen xañ loo xam ni ñoom ñoo ko moom euh, liste bi génn definitive bi ñu retenir vingt candidats mu amoon ci kenn koo xam ni dañ ko ne dootoo mën a nekk candidat parce que ñaari nationalité nga am te charte Sénégal constitution bi dafa ne pour nga jiite réew mi da benn nationalité nga war am exclusivement sénégalais mënoo am beneen euh, ñu dem di dem ba ñu seetluwaat ni am na candidat ci ñi ñu retenir ñu conseil concerné ne seen candidature baax na ñu gis ni ñaari nationalité la am loolu jaxase mbirum élection bi ba aussi assemblée ne am na ñu ñuy jiiñ am na lu ñu def ci conseil constitutionnel ñu taxawal samp seen commission enquête parlementaire euh, bi ñu demee bureau bi bind la ne ñoom daal dañu bëgg a dugal pour voter benn proposition assemblée pour que élection yi ñu dàq ko pour juróom benn weer pour ñu mën a saytu loolu bi nga jotee bataaxal bi nga ne jot naa seen bataaxal dégg naa li ngeen wax ñoom ñu wéyal seen liggéey ba voté benn loi boo xam ne dafa dàq élection yi ba quinze décembre deux mille vingt euh, nga jël décret en tant que président de la république euh, randal euh, ne li nga woowoon ñi war a voté maanaam collège électoral bi pour ñu ñëw vingt cinq février voté dàkkal nga décret boobu euh, mu am nag ay candidat ak ay député dem jooytu ci conseil constitutionnel ne loi bi kat bi assemblée jël dëppoowul ak sunu charte réew euh, conseil constitutionnel saytu ko ne ah dëgg la ci conseil constitutionnel ci li ñu wax loi boobu di dàq élection yi dëppoowul ak sunu constitution te comme dëppoowul ak sunu constitution décret bi nga jël fi mu wéeru baaxul kon nag élection mais nag ñu ne ak lu mu mënti demee élection mënul am moom vingt cinq février comme mënul am vingt cinq février yéen autorité yéen exécutif bi Euh, daf leen wax ni na ngeen seet mën nañ ko wax ci nu mu gën a gaawe mais ci nu mu gën a baaxe parce que bref délai ak maire délai bokkul nan la gën a baaxe ngeen organiser waat élection jëlaat date élection pour que élection comme mënul nekk vingt cinq février ñu defe ko noonu yow bi nga jotee décision conseil constitutionnel bi ci suba si nga bind communiqué nga ne li ngeen wax dinaa ko def dinaa seet dinaa ubbi ay waxtaan ak kuje politique yi ak société civile bi ak ñëpp pour xool nan la ñuy arrêté waatee beneen datu élection def ko ci jàmm mais nag ubbi ko aussi donc déglu nañu aussi ci ñaari conseil de ministres yi weesu euh, instruction yi nga jox sa yenn ay ministre yi ñii ministre de l'intérieur ñii ministre de la justice pour que ñu bàyyi ñenn ñi wala ñu commencé daal saytu nan la ñuy organiser waat élection euh, nga nangu ubbi waxtaan ak presse nationale ma toog fii ak RTS E-Media Seneweb ak euh, sama natango Yakham Mbaye bu quotidien Le Soleil kon nag moom laa bëggoon jébbal waxtaan euh, kàddu gi su fekkee amoo loo ci teg merci beaucoup. monsieur le président de la république. le président la république euh, li ma bëgg laajte euh, dama bëgg génn tuuti si ñi nga xam ne dafa xaw compliqué mu mel ni constitution nga xam ne ñu ko jàng sax xamuñu si lu bare. ak yeneen daal yoo xam ni sénégalais yi ñi nga xam ne ñu si ëpp su ma juumul ci li ñuy xayma. dégg xam naa ne jànguñu baatu nasaraan bay xam li ñuy wax ci nasaraan mu bëgg la laaj monsieur le président ci loo xam ni tamit nit ñi bi ñu yégee diñ fiy ñëw am na ñu xam ñu ñu xamul dañuy yóbbante ay laaj mënuñu toog kenn ku ne di wax yóbbanteem mais mën nañ tënk lépp man si ñu bare ñi ma ñi nga xam ne xam naa leen ak ñi ëpp nag xaw ma leen xaw ma nag fu ñu jëlee sama numéro téléphone ñoom li ñuy mbewul liñ nii mais ñi nga xam ni manifesté wuñu yàquñu tojuñu duñ doon doxi seen soxla rek wala kii yaayam yónni ko diwliñ wala kii yaayam yónni ko marché ñu boom leen sénégalais yu ñu boom est-ce que famille yi fi des nekk ci métit peut-être mën nañ ko xayma xam nañ ko est-ce que amul loo xam ne état ak Sénégal bi nga xam ne ñëpp la fi nekkal mënuñu xalaat comme ni ñuy xalaatee dialogue ak leneen amul xalaatu ndàmpaay bu ñu leen mën defal beneen laaj bi mujj président bu ñu ma bare laaj tiñ ma ni Senghor daa pare dem Verson Normandie euh, Abdou juuf pare dem Île-de-France sa Paris Ablaye Wade pare dem Paris tey ñu ni Macky Sall su pare day dem Maroc daanaka Maroc sax niroowu la ñuy parce que Maroc ak Sénégal benn la li ñu seq dafa bare Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak lu bare mais ma doon laaj président euh, lu tax euh, xalaatoo ni mën nga euh, wut ab place bu yànj bu yaatu Sine wala Saalum wala Waalo mbayum ceeb pataas beeg yooyu oh. doxontu nit ñi di la gis mais est-ce que xalaatoo ni su fekkee ñun à chaque fois rek suñu amee kilifa réew mu jiite ñu jiite ñu mu neex mu naqadi génn bi sax rafet mu génn dem bitim réew tànn France wala Maroc est-ce que xalaatoo ni président même su fekkee jël nga décision xalaatoo ne tamit mën nga revenir sa décision toog ñu lay gis Ndakaaru di la gis sin di la gis Saalum di la gis Waalo. jërëjëf yaakaar naa ne laaj yaa ngi bëri balaa muy gën a bëri d'abord ma maa ngi nuyu waa réew mi di nuyu kilifa diine yi leen ziyaara di nuyu population bi ñi ci réewu taax yi ak ñi ci kaw yi di nuyu diaspora bi ndax ñu am solo lañu ci réew mi di nuyu mbokk yëpp yi ñuy seetaan sant yàlla bu baax nag ci jotaay bi tey ñu jagleel nag suñu presse nationale pour waxtaan ci wàllu réew mi fi mu toll tey euh, directeur général Racine Talla ci ubbiteelu waxtaanam waxaat na li fi xew yëpp ak li indi maanaam dàq bi ñu dàq élection vingt cinq février kon loolu duma ma si ñëwaat ndax lu ñëpp seetaan la lu ñëpp gis la ah li ma bëgg a wax rek mooy fi ñu toll tey waxtu wi daf ñu xoj ndax ginnaaw bi ma réew mi joxe kóoluteem falma président de la république ci atum 2012 ma waat ci 2 avril 2012 booba mandat bi juróom-ñaari at la xam nga ci biir mandat boobu laa def proposition pour ne nañu ko wàññi sax def ko juróomi at conseil constitutionnel ci jamonoom 2016 ne ma nañu wàññi mandat bi ndax ba nga koy jot juróom-ñaari at la ñu def juróom-ñaari at yi réew mi wóoluwaat ma dënkaat ma boppam ci juróomi at ma prêté waat serment ñaari 2 avril 2019 kon bu ñu yegsee 2 avril bii di ñëw 2024 dafay nekk njeexatilu sama mandat ci bopp réew mi loolu nag dama yaakaar ne ginnaaw bu ma sante waa réew mi ci kóolute googu te ma def sam kem kattan ngir Sénégal jëm kanam ci diir boobu def lu bare bare ci wàllu développement du ma si ñëwaat fii lépp bu dee sottiwul it ndax àdduna mënul xëy sotti si si juróomi at wala fukki at waaye jéego yu ama am solo dox nañ ko kon bu ñu yegsee foofu dama jàpp ne njeexital bi foofu ak élection di am coow mënoon na si bañ a am waaye comme coow am na il faut ma leeral ne sama yéene ak sama bëgg-bëgg ak sama gis-gis ak sama décision mooy su mandat bi jeexee ñaari fan ci weeru avril 2024 bii sama liggéey si bopp réew mi fa lay yem léegi nag dañu toll ci élection jàppaguñu date bi date bi tam faw ñu toog altine ak kuréel yëpp candidat yi parti politique yi kilifa réew mi ci euh, bànqaas yi nga xam ne ñoom moom la ñu ŋànk te ñu doon def toujours dialogue national ñu waxtaanee ko ginnaaw président mandam mu ngi jeex te élection war am dàq nañ ko kon nañ ko def ci diir yu gën a gaaw nañu juboo ci date bi loolu dëgg yàlla bu fekkee ku ne yaa ngi jiital réew mi warul am jafe-jafe kon war nañ mun trouver ci dialogue bi date boo xam ne ñëpp dinañ ci d'accord suñ ci d'accord su boobaa si saa si dinaa jël décret pour woote si date boobu la woo collège électoral mu nekkoon jéego bu am solo bu ñu def ñaareel bi tam nan lañ ciy demee am na lu ñu tàmbali woon ñii nee nañu conseil bi bi mu ne élection bi baaxul kon lépp dafay nërmeelu ñii ne déet conseil bi kat fixé na ba joxe na dix yoo xam ne ñooñu validé nañ leen kon est-ce que dañu war a continuer rek ak ñooñu gaawal mbir mi xëy na sax ñu fexe ba balaa fii ak le deux ñu fexe élection am loolu tam position la ñii ne déet dañu war a ubbiwaat ay inscription su ko defee élection bi ñu def ko ci anam yu gën a gaaw waaye yuy permettre nag képp ku war a bokk mën a bokk su ko defee kañuy tànn nekk tànneef boo xam ne bu rafet lay doon bu leer lay doon te bu bu bu bu bu ànd ak ubbite lay doon donc loolu nag la ñu war a waxtaanee à partir de altine yaakaar naa ne maa ngi woo ñëpp ñu si war a ñëw ñu ñëw te jiital Sénégal vraiment pour que réew mi dox si jàmm ndax nag jàmm mooy li sëñ sëñ maam Baye Abdou waxoon lépp lu waay am te du jàmm dina ko di nga ko fa teg wuti jàmm ba am jàmm doog mën a continuer si langa la nga nekkoon ndax boo amul jàmm mënoo def dara mënoo def développement mënoo def dara dara mënoo ko def mm. kon dañu war a sàmm réew mi si jàmm jooju dem ci élection yi si jàmm nañ ko daan defee at mu ne saa yu ñu amee élection su ko defee nag képp ku yàlla tudd na yow yaay wutu si place bi te suñu borom pare na démb balaa tey mm-hmm. ñu rafetal mbir yi su ko defee ñu nangu loolu nga xam ne moom la réew mi dogal wa amaa li nga wax nag si question yi bari woon na euh, am na nit yu faatu may jëlaat occasion di jaalewaat seen i mbokk ndax président de la république fu doomu réew wàññeeku moo xam accident la moo xam ci manifestation moo xam ci lu mu mënti doon ah méttit lay doon tiis lay doon suñu sago benn doomu réew mi du wàññeeku surtout ci ay manifestation politique waaye nag xam ngeen ne réew ay charte ñoo ko am na loo xamante ni dañ koy tuddee toujours ndàmpaay xëy na waxin la mën na nekk soutien mën na nekk indemnisation waaye boo tuddee indemnisation rek day indi tribunal waaye li am solo mooy nu dimbalee askan wi njaboot gi bu tiis amee accident yi day am léeg ngeen gis président dem état nekkul responsable waaye mënoo am dix accident bu diis am te doo taxaw askan bi loolu def nañ ko defaat ko defaat ko donc yu mel noonu yaakaar naa ne Sénégal war na mën jël ay ay ndimbal yu yu takku yoo xam ne mën nañ ko baaxee njaboot gi nga xam ne dañu perte seen doom euh, muy pertement boo xam ne tam réew mi yëpp ko ñàkk loolu ñu fexe rek ba mu gëj fi am ba mu am mu bañati fi sax am Mhm. donc loolu mën nañ ci dox yaakaar na mhm. ci jëmmi jamono. jërëjëf président. Euh, yaa xam pour votre future destination. Ah, waalo Fatick <laughs> nga am nga man waaw waaw non non mais dinaa ko tontu ndax euh, il faut que ñu xam ne aussi euh, président depuis président Senghor. Mhm. dafa jiite réew mi ñaar fukki at comme président la république. muy dem bàyyi fii premier ministre muy président Abdou Diouf. mu nekkoon njiitu parti soo gisee président yi bu ñu wàccee liggéey sore dañuy bañ a gêner kii ki leen di wutu parce que mënoo nekk njiit si réew yor sa parti jiite ko ku nekk si sa biir parti ñëw nekk président nga toog ak moom ci même bés bi même bërëb bi su ko defee ku mere fi jóg dem seeti président ba jiixi jaax a commencé am ay jafe-jafe di am loolu mooy tax nit ñi dañuy soree tuuti waaye ça veut pas dire dañu quitter réew mi dañuy dem lu xew di nga dellu si xëy na sax dangay toog at rek wala at ak lu topp ba pouvoir bi toog ba président bi jël ay markam su ko defee nga ñëw man mii maa ngi wut ay tool ak i nag donc mënuma jóge Sénégal waaye nag bu yàlla dogalee nga jóge ci réew mi surtout nag bu fekkee da nga jàpp ne sa waa kër ñoo ñëw euh, boo buggee toog réew mënul am ñaari kilifa donc il faut que kilifa bi yàlla indi mu bees ñu may ko espace mu mën a liggéey loolu moo waral loolu waaye du càgganu nit ñi dañuy génn rek dem feneen waaye nag newoon naa bëgg naa def ci Afrique ci Sénégal du tere nag dinaa dem fépp fu ma liggéey war a mën a yóbbu wala ay soxla mais Sénégal moom na la leer ne muy Waalo muy Siin muy Fuuta muy fépp Casamance mm-hmm. donc euh, incha allah dinañ continuer di fi ñëw voilà donc euh, RTS Mariama Dramé alors monsieur le président yaa ngi wax euh, waxum dialogue loolu yëpp pour apaiser climat bi la euh, mën nañu xam ñan ñoo ci bokk ak ngeen ñëw ci li ngeen ci fas yéene waxtaan pour ci élection yëpp am ci jàmm yaa ngi wax tamit waxu ay amnistie mën nañu yaakaar ne ki nga xamante ne ñëpp xam nañ ko mooy candidat Diomaye fay bi nekk prison ndax moom war na mën a bénéficier ci amnistie boobu wala keneen ku mel ni Ousmane Sonko waaw loolu xam nga bu ñuy wax réew dina toll foo xam ne li mu war a def mooy luy jubale nit ñi ak luy tax jàmm gën a yaatu loolu nag léeg-léeg amnistie dana am amnistie mooy dañuy effacer yi fi xewoon dañuy fàtte fi xewoon fàtte sax xëy na du fàtte waaye daal dañuy mel ni loolu mosuloon am réew mi mooy nangu loolu ngir ubbi page bu bees loolu nag dama jàpp ne comme maa ngi dem li ma gënal mooy man ma bàyyi sama ginnaaw Sénégalu jàmm Sénégal boo xam ne continuer liggéeyam ci wàllu développement donc bu jaree ñu def loi buy génnee ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu yoon mais jar na ko pour Sénégal nekk ci jàmm jar na ko ndax bu ñu continuer jàmm bañ a am ñeneen dinañ faatu yàqu-yàqu yi dina gën a bëri ñeneen dañ yàq ñàkk seen alal ak loolu te su boobaa dootuñu tal développement dootuñu tal di dox si soxla ndaw ñi di leen indil li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg wala seen i yitte loolu nag nit ku mën a kuy seet rek intérêt réew mooy mën a waxee noonu waaye boo xool intérêt politique rek xëy na bañoon ko def ci wàllu politique moo ëpp moo moo ëpp intéret moo ëpp si man si sama camp waaye réew mi la ñuy xool ak avenir réew mi donc looloo tax ma ne war nañ mën a dem ba yegg si foofu def amnistie au besoin bu ko laajee liberté provisoire pour ñenn ñi liberté conditionnelle pour ñeneen ñi mm-hmm. loolu tàmbali nañ ko pour créer climat d'apaisement ndax élection yi ñu jëm mën a nekk élection yi ñu def ci jàmm ak salaam. est-ce que coalition Diomaye président dina bokk ci dialogue bi nga woote. ah loolu ñoom ñooy tontu ci loolu ndax en tant que man daal dinaa recevoir candidat yëpp bu yàlla defee balaa boobu ñoom bu amee liberté xëy na moom mooy décider ne dina ñëw wala du ñëw mais. waaw bu ay avocat am ñooy lijjanti loolu mu nga yoon tam dafa am ay procédure euh, président mënul wax nit génn rek ñu dem ubbi bunt bi génne ko dafa am yoon dafa am procédure bu fekkee wàllu liberté provisoire la avocat ñooy bind euh, procureur ak juge d'instruction bi ñu xool après loolu mën na nekk dëggam volonté bi c'est ça euh, li ci des nag moom am na ci rek te loolu loi la loi nag bu amee dafay dafay loi amnistie dafa wute ak grâce président bu nit nekkee kaso ba ñu jugé ko ba mu pare ba tribinal pare ci moom président mën na ko jéggal li ñu tuddee grâce loolu constitution moo ko may sañ-sañ boobu mooy tax toujours bu tabaski jotee wala korité wala 4 avril wala 31 décembre ngeen gis président libéré lu ay junniy nit pour rek président yi ñu libéré ñu ñu ñu féexal ko su ko defee ñooñu tam mën a profité pour changer seen bopp mën a reprendre beneen vie Euh, grâce nag dafa fu muy yem waaye amnistie moo ëpp doole am si nag assemblée nationale moo koy voté ndax loi la loi boo xam ne danaan day dindi ñaawteef yi amoon wala jafe-jafe yi amoon crime yi amoon wala délit yu mag yi amoon su ko defee ña nga xam ne dañ leen ko tuumaal automatiquement bu loi bi jàllee dañuy dindi tuuma yooyu yëpp su ko defee ñu moomaat seen bopp dootul am benn conséquence si ñoom nii si seeni droit kon nag euh, defe naa loolu leer na différence entre grâce amnistie ak liberté provisoire comme nu mu ko waxee euh, ci français léegi euh, merci. président bi nga commencé wax. Hmm? wax nga yow sa mandat le trois le 2 avril lay arrêté. Hmm. yow laajoo leneen. Hmm. da nga wax ak sénégalais leer na. léegi est-ce que diggante loolu ba mandat bi am élection mun naa am diggante fekk 2 avril. maanaam am nañu proposé le 3 am nañu pour mars ñu proposé le 10 mars pour deuxième tour est-ce que ci waxtaan bi nga war a waxtaan ak ñoom euh, sa naataangoo yi war a ñëw fii ak sa opposition war a ñëw ak société civile di ngeen jël date balaa nga bañ a dépassé 2 avril parce que am ñuy laajte ne bu ñu dépassé 2 avril président assemblée nationale jël nguur gi continuer. xam nga man awma lu may proposé parce que lépp dafa nekk ci téere bi ñu tuddee constitution du Sénégal. lépp lu ñu def fii lañ koy tibbee su fekkee ne fii li fi nekk ñëpp bokkuñu uh, atte bi wala niñ ko déggee du ne du du benn kenn mooy juge boo xam ne moom moo mën a firi li ñu war a jàpp muy conseil constitutionnel kon bu fekkente ne élection bi amul fii ak le deux ba ba ñu fal président kon ala kuliyaaleen day am après le su ko defee nag le bi lan mooy xew loolu dialogue bi nee naa leen dina ci waxtaan pour xool ban intérim la ñuy def ak naka lañ koy defee loolu tam bu paree su fekkente ne nit ñi bokkuñ si àtte ala kuliyaaleen du ñàkk le conseil constitutionnel joxe si lecture am joxe ci avis boo xam ne avis boobu nag ñëpp dañ si tënku donc loolu la man damay pare le 2 avril c'est clair soxlawuma yokk dara ci sama mandat wax naa ko mu leer waaye bu paree te ñu ngi ci processus électoral bu pareegul ala kuliyaalin faw ñu xool nan la ñuy saafara ban euh, saafara la indi si mbir moom ba nga xam ne élection yi dinañ dem ba mu pare ba président bi ñu fal jël fonction. te saafara boobu si dialogue bi nga yaakaar ne la a mun amee. dialogue bi mën na si joxe xalaatam. conseil constitutionnel mën na si joxe xalaat absolument mais dialogue bi ban format ban format lay am dialogue bi dialogue bi mooy ñi nga xam ne d'abord ñoom ñooy les premiers acteur mooy candidat yi feeñ ñii ñu jàppale ñii ñu valider leen ba pare muy ñii ñu éliminer leen ñii ñu tuddee seen bopp candidat yoo xam ne dañoo jël seeni seeni parrainage ci anam yoo xam ne d'accord ñu si mooy di tubaab di wax candidat yu tuddee seen bopp spolier am dañ nangu seen i parrainage donc ñooñu ay acteurs lañu waaye nag acteurs yi yeneen yi gën a mag mooy la classe politique classe politique nag c'est les partis politiques c'est aussi les acteurs de la société civile ñoo ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ce sont les forces vives de la nation bu réew tolloo fii képp koo xam ne mën nga si wax wala dox si ngir réew mi nekk si jàmm continuer liggéeyam yaakaar naa ne jot na nga wax si walla nga def loo xam ne dina gën a defar euh, mbir mi ñu dem jàmm si élection te bu ñu jiitalee réew mi rek jàpp naa ne si ñaari fan ñaari fan sax ëpp na ci benn fan war nañ mën a d'accord ci loolu donc loolu lay ñaan que ñëpp ñëw altine gën gaa yàgg talaata ñu mën a fixer datu élection bi mën a décider aussi nan la ñuy def pour après 2 avril président biir la sa euh, dalal réew mi ñu bëri jàppoon ne sax euh, am na ñu ñu bàyyi ñu nemmeek ko mais ñu bëri jàppoon ne aussi kon ñi gàddaay war nañ mën a ñibbisi am kenn si ñoom ku ñibbisi nu jàpp ko tey daanaka tribunal greffier yi danoo banque seen yoxo euh, loolu yi tamit mel ni luy mën a xajamal sa woote jàmm bi nga woote foofu est-ce que amul luy jiwarloo tuuti entre yow sa mbébét ak jàpp yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku. waaw xam toujours si état. dafa am ku nekk euh, rôle booy jouer ak pouvoir yoo am pouvoir juge yi président mënu si dara mais bu ñu jugee ba pare wala bu ñu defee seen action état mën na xool à travers son parquet maanaam procureur yi procureur généraux xool bu dee ñun dañu ne dañu bëgg daal vraiment ñu dalal lépp dox jàmm parce que loolu fa la mi toll war nañ mun gis kon ab solution ndax yaakaar naa ne ñi ñu ñu dawoon génn bu fekkee dafa amoon mandat buñ leen def wala am na lu ñu leen toppoon la kuliyaa leen bu ñu ñëwee faaw ñu jëlaat leen ñu ñëw wuy si yoon ba pare non après qu'est-ce qui va se passer danañ xool cas bi lan la exactement waaye jàpp naa ne même bu dee ay greffier euh, waruñ nekk au-dessus de la loi kon war nañu dimbale aussi réew mi ñu fexe xool cas bi lan lan la ak nu mu tëddee bu fekkee ne moom it euh, mën na bénéficier si ñu nga li ñuy wax ay liberté provisoire wala si mesure yi ñuy wax parce que xaw ma kaam exactement lan la su boobaa danañ mën a arriver à des solutions maanaam si ay ay saafara. Euh, am na si ay témoignages aussi si condition de détention yi ñi naan dóor nañ ma ñi naan def na ma nangam loolu tam ndax jotul ñu def si ay gëstu pour xool si yan anam la ñuy jàppee si yan anam la ñuy téewee nit ñi ak si yan anam la leen di dencee. ministre de la justice garde des sceaux def na conférence de presse barki démb. tontu na lu yaatu yaatu si mbir moomu duma ci ñëwaat waaye dama jàpp ne ku ñuy dóor kaso wala di la torturer doo xaar ba génn ngay doog a wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosu la dégg nga wax ko ndax doomu aadama doo waroon nangu ñu lay teg ah, loo xam ne du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñuy police suñuy agent pénitentiaire niñ leen jàngalee suñuy policier gendarme ñu ne dañuy torturer ay citoyen accusation nag taxul ñu ne la ñu accuser am na waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku nekk ñu ngi lay seeti si say avocat ngi ñëw te kenn mësul dégg na yow dañ la torturer kon léegi comment subitement on peut dire dañuy torturer nit ñi dans les prisons loolu man dafa tey sama xel te mënuma ko nangu lu dul ñu indi preuve bu koy wone su boobaa nag effectivement enquête war na mën a am pour saytu loolu. donc euh, yaa xam wax mu ne na dafa am ñu bëri dañ leen jàpp ci euh, manifestation yi bu leen bàyyi amuñ indemnisation yow nee nga il faut mu jaar justice waaye am na beneen problème bu am ci ci loolu am ni xamante ne président ci manifestation yi day ñàkk seen bakkan mais gisuñu benn yoon moom yoon taxaw juillet ñi nga xamante ne def nañ ñaawteef boobu loolu amul ñan rey loolu amul. bul wax yoon depuis 2012 non non non non loolu amul. jamono ji ñuy wax am na ay cas yu nekk pendant devant la justice sur sur des faits de de manifestants décédés il des enquêtes en cours et le juge d'instruction il y a énormément de dossiers yéen ay journalistes ngeen dem leen ngeen saytu tribunal am na ay procédure qui son en cours donc il faut pas ñu wax ne oui amul benn enquête loolu amul méngoowul ak réalité bi. donc chaque fois que d'abord nit gaañu première chose bu procureur di mooy dafay ordonner autopsie ñu xool si yant circonstance la nit ki faatoo lan moo ko gaañ wala nu mu faatoo su dee bal la ñu xam bal bi fu mu war a jóge enquête bi foofu lay tàmbali ba ba fa mu yegg ba ci jugement donc nag bu ñu wax ne dara enquête amul loolu loolu méngoowul ak réalité y a plusieurs dossiers judiciaires en cours si événement yu mujj yi si ñaari at ba euh, président léegi defe naa dernier tour de table moo des pour ñu tëj waxtaan bi parce que defe naa déjà aborde nañu point sur le 2 avril fin mandat du président de la république wax nañu datu élection yi nee na incha allah peut-être mu génn ci concertation yi muy am ak yi yi ñu retenir candidat qui se disent spoliés ak euh, parti politique yi ak waa société civile euh, nee na it moom 2 avril la mandaam di jeex incha allahu rabbi bu boobaa li ci des ci dialogue bi lay jóge wala ci conseil constitutionnel loolu aussi lu leer la euh, li ci des aussi mooy bëgg na réew mi dal réew mi am jàmm lu war a jaar amnistie jaar amnistie kooku assemblée nationale moo koy saytu lu war a jaar grâce moomu ci dogalam la décretam la li war a jaar liberté provisoire juge yi la ak mbirum pouvoir judiciaire la donc euh, defe naa loolu la ñu tënkoon ci français excellence président de la république mais pour tàggoo ak président euh, ñu def un dernier tour de table yaa xam après euh, Diallo euh, Alassane comme nag RTS mu organiser émission bi ñu jox ko honneur mu tëj incha allah. <laughs> monsieur le président de la république. man dama xalaat ne am na laaj boo xam ne peut-être suñ ko laajul woon tamit euh, suñu génnee fii peut-être dinañ ñu am ñu xool président de la république euh, kenn sikk sàkkawul ni yow yaay gardien de la constitution c'est-à-dire li tënk suñu fi ñu war jaarale yoon bi gën a am solo yow yaay gardien bi. président de la république yow tam la ñuy wax per de la nation c'est-à-dire yaay kilifa réew mi mais ci fa euh, nation boobu famille la famille boo xam ne lépp ngi si biir parce que force de défense et de sécurité yi ñi nga xam ne ñoo tax ñu mën nelaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di ñu aar sàmba boo yéeg leneen sa famille lañ bokk euh, patronat bi sa famille la bokk syndicat yi sa patron sa famille lañ bokk chômeurs yi sa famille lañ bokk mais tamit am na pàcc ci biir famille boo xam ne tamit dafa am solo parce que tamit président de la république nga mais tamit toujours dañ koy wax tamit chef de parti nga ci biir pàcc ci famille boobu am na ñi nga xam ni ñoom <clears throat> ñooy nekk ak yow jàppale la mu metti mu tàng mu sedd ñoo lay jàppale est-ce que ñooñu tey président de la république ci fi ñu jëm seen xel mën na dal parce que ils ont toutes les raisons ñu rassuré wu seen xel dal du ñu tiit du ñu ragal du ñu dara ne xam ni président Macky bañ ba ñu amoon démb bërki démb mu leen di aar gunge leen jàpp leen président boobu moo fi nekk te amuñu benn raison ñuy tiit ah président kat waxoon na du wax waxu politique. loolu la wax Alassane Samba Diop de. du ma ko wax sax. sama question. <laughs> politique je des éléments de la ah. grande de sa ci wolof la ñu nekk. d'abord maa ngi lay sant bu baax. Euh, li ma waxoon mooy fi réew mi toll tey. Mhm. dëgg-dëgg jàpp naa ne réew mi rek moo ñu fi indi. Mhm. réew mi dafa nekk ci kaw parti nekk ci kaw président la république nekk ci kaw coalition. Mhm. te fi ñu toll tembe. dañu war a xool lu ñuy yóbbu ci élection si jàmm ak salaam ñu woote jiitu réew bu bees génnaat réew mi continuer ku nekk nag si sa wàll <coughs> yaa ngi def say kem kattan ak say pexe pour gagner élection bi loolu duma si dugg tey parce que du sujet bi te jàpp naa ne waxtu bi fi mu fi mu toll tey ci réew mi loolu yeneeni sujet la moo tax sànq moo wax Alassane vraiment bëgguma dugg ci wàllu politique politicienne wala politique interne mhm. loolu mun nañu amee occasion pour def ko mhm. euh, li ma soxal daal tey mooy bëgg naa bu may dem mhm. ginnaaw sama ñaari mandat sama ginnaaw ma bàyyi réew muy dox di continuer bëgg naa président bi ñu fi fal ñëw mën a revendiquer bilan bu gën bi ma fi def ndax loolu mooy intérêt Sénégal waaw donc loolu ci la ñu nekk nañu régler mbirum élection yi di mu gën gaawee date bi ak nuñ siy demee ak ñu gaaw après le deux nan la taxawee ba réew mi du am benn benn jafe-jafe loolu mm-hmm. buñ ko defee rek yaakaar naa ne mm-hmm. li ci des yëpp dinañu continuer di ko di ko toppatoo merci monsieur Diallo Seneweb euh, président euh, ñu gërëm la <laughs> parce que mooy doon sama kàddu mbuju euh, mais président bi nga jëlee ndogal ñu bëri ànduñu si ñi comprendre ñu xam ne la moo xew sànq bi ngay tontu sonn Mariama yaa ngi juñ ne amaana bu ñu demoon élection si condition yooyu mën na am lu raw sax li ñu di mën na am mais président question bi ñuy posé mooy xam na ne président du defantu lépp lu mu def am na lu tax. lan leen teg sa loxo président pour nga mën na jàpp ne taxaw jot na laataa ñu dem si loo xam ne nii mën naa xajamal processus bi wala président bi ñuy fal amaana ay mbiccoog mbaaloo am si. xam nga junju doy na borom xel te wax nga ko président du defantu dem ba élection jub nga ne kat d'abord comme assemblée nationale. jël na dogal boo xam ne si sañ la ne man kat damay def loi pour dàq élection bi kooku décret moo nekk ci ci kaw décret donc te bañ may bind déjà commencé nañ seen commission bureau bi daje na ba pare woote nañu commission de loi war a def plénière kon assemblée jël na dossier bi am mai il fallait que ñu taxaw ba xam fu muy mujj la preuve fi mu mujj mooy conseil constitutionnel dàq na yoon bi mais tey bu jàlloon kon lu ñu def dañu bàyyi nit ñi campagne ba le vingt dépense seeni xaalis am na sax ay candidats yu naan dépensé nañu xaalis laata ñu yegg si fii donc loolu yëpp ay jafe-jafe la donc loolu ak leneen lu ñu mën a wax ak lu ñu mënul wax tax na il fallait ñu taxaw ba xam loi bi fu mu jëm loi bi assemblée wote na ko conseil daane na ko dàq na ko parce que li tax conseil dàq ko aussi lu jaadu la parce que conseil daf ne loi bi du du question assemblée amul sañ-sañ de waaye daf ne loi bi buñ ko bàyyee mu jàll conséquence bi maanaam la muy jur mooy kon président bi fi nekk mandaam di jeex le deux amaan na bu toogee bu toogee nag parce que bu buñ demoon dem ba décembre bu fi président nekkul kon benn problème amul ci loi bi parce que mandaa bi dafa taq ak nit ki su nit ki ne defuma man li des comme ni ma ko waxee léegi nii kon benn problème du am benn violation de l' article vingt sept ou l' article cent trois du am parce que léeg dañuy tënk nit ki jëmm ji ak mandat bi. mais proposition de loi bi dafa ne yow yaa fay des. déedéet waxu ko daf ne le président en fonction. Mm-hmm. ça veut pas dire Macky il décide de rester loolu c' autre chose mooy li ma la wax xam nga la xam nga loi de déjà nee na article trente six Mhm. président bi fi nekk day mhm. toog ba ñu fal keneen mhm. euh, mun naa ne wax naa ko du ma toog donc entre nit ki ak décision am ak li loi bi di wax dañ ko war a séparer waaye dañuy boole lépp kon ndëgëm conseil nee na jàpp na ne bu loi bi jàllee juróom-ñetti weer dina tegu ci màndaa bi donc te article vingt sept ak cent trois dañ ne mandat bi kenn mënu ko yokk te kenn mënul changer mhm. loolu te loolu ñun ñoo ko proposé woon référendum 2016 te ñii di wax dañu wote woon contre donc conseil foofu la teg daane loi boobu ndegam nag loi bi si la décret bi sukkandiku woon te loi bi nekkatu fi kon décret bi tam dafa war a daanu dafa war a deñ moo tax ñu ne d'accord nañu jël nañu acte pour doxaat ni ko waxee ngir ñu tànn dat boo xam ne si nu mu gën a gaawee si nu mu gënee ñu dem ci élection euh, présidentielle donc si loolu lañu ñu nekk loolu nag dinañ dajale ñu war a toog waxtaanee ko suñ ko waxtaanee su ñëpp jiitalee réew mi war nañ mën am juboo si dat boo xam ne du sore te ñëpp dinañ ci mën a ànd su ko defee réew mi nekkaat si jàmm di rek Alassane président ci waxtaan bi ci baisse tension bi ci réconciliation nationale bi nga wax ci Sénégal yi bokk jàmm am ci réew mi est ci biir waxtaan bi Ousmane Sonko bi xam ne nga tey si kaso bi moom ak Jomaay euh, Fay ak ñeneen ñu bëri yaakaar nga ne waxtaan bi mun na tax ñu génn kaso bi toog waxtaan ak réew mi ñu waxtaanee réew mi. bu baax dama ne il faut que réew mi dal il faut que réew mi waxtaan dem ci élection ak jàmm ak salaam. réew dina toll foo xam ne dana jéggale dana jubale dana def kem kattanam ba ñi féewaloo woon sax ñu ñu jëm leen teg ci yoon loolu lañ tuddee le pardon la réconciliation Sénégal ay at a ngi ci ginnaaw bi procès président Mamadou Dia amee ci ay at topp na ci def nañ fi loi d'amnistie effacer lépp MFDC président Abdou Diouf toog nañ jamono malgré la xew dañu ne nañu fàtte ngir ñun ñëpp ñu nekkaat benn liggéey ngir jàmm dellu si Casamance. maître Sey Ahmatullah Ali bañ ko boomee ci wàllu élection la woon ci atum bu ma fàttewul. 93 2093. 1993. dañ ko reyoon dañ ko boomoon ginnaaw gi ñañu ñañu tuumaaloon ba tëj leen. ay at ci ginnaaw bu président Abdoulaye Wade ñëw am na loi d'amnistie ñu tuddee woon ko loi f hmm. kon tey Sénégal bu ñu tolloo fii jàpp ne li ñu war a aar war nañ ci dox ngir réew mi mucc bu leen fàtte ne Sénégal nekk du rek Sénégalu gerte hmm. ak dugub ak mboq pétrole daf fi feeñ gaz daf fi feeñ or daf fi feeñ muy muy muy muy muy muy ngalam loolu nag dana indi ñu bare bare bare ñu bëgg a ñëw teg loxo si réew mi kon bu ñu yegsee foofu lépp lu ñu mën a def ba jàmm yaatu ñu mën a jàll si élection yi jar na ko ndax jàmm loo ko jënd rek jar na ko lii moo tax ma ne man dàquma ñi nga xam ne tey jii am nañu jafe-jafe ak yoon ñu wut ay solution bu dee liberté provisoire pour loolu tàmbali la rek waaye bu laajee sax loi si ñu def ko pour ñëpp génnaat Sénégal nekk ci jàmm jar na ko dama ko assumer en tant que njiitu réew parce que njiitu réew njiitu famille la famille nag ñi ànd ak yow ak ñi àndul ak yow ñëpp sa njaboot la ñu bokk parce que yàlla moo la jox njaboot googule donc kooku responsabilité am du yem ak ki nga xam ne rek moom day def analyse boppam ñi def nañu lii crime la kon waruñu leen bàyyi nangam nangam mais boo xoolee jàmm ji ak li lal jàmm ak li jàmm di indi yaakaar naa ne jot na Sénégal dépassé situation bi ndax ñu dem ci jàmm ak salaam si élection. relance question relance mooy ci war bi di tàmbalee bu ñu càmbar candidature yi am na ñuy naan dañu am double nationalité. waaw am na ñu ruumandaat ba léegi am na nekk ci biir yore double nationalité ba léegi. est-ce que liggéey boobu dañ koy càmbar ñu xool effectivement est am na mbaa amul beneen dernière question bi mooy. est-ce que Ousmane Sonko. ak yow jokkoo ngeen téléphone ngeen waxtaan ou bien toog ngeen ngeen waxtaan téléphone Ousmane Sonko ou bien est-ce que am na intermédiaire seen diggante non d'abord euh, ci wàllu euh, question bu njëkk bi ma xalaat dañu bëri ay question nationalité bi ay candidat ñu ngi koy wax ñu ngi koy rumandaat lu bare bare waaye loolu itam du ñun ñoo war a xam nga bu doon mbiru gouvernement la dana yomb ñu saytu ko lijjanti ko waaye comme loolu du suñu wareef amaan na du ñàkk ñi ko war a saytu muy conseil constitutionnel bu leen yàlla mayee capacité bi ñu def ko waaye li gën sax du pour man ñoo ñu def ko mais ki nga xam ne yow yàlla xam na ni yow xam nga ne am nga yeneen nationalité je pense que yow yaa war dimbali réew mi xëy rek ne man daal maa bëggoon nekk candidat nekk du ma ko pour des raisons personnelles su ko defee dinañu éviter ñu dugaat ci processus di amaat ay ay yoo xam ne mën na indiwaat jeexi jaaxa ak jafe-jafe bon loolu tam yaakaar naa ay jàngat dina si am pour prochaine élection xëy na fiche yi ñu def wala mu nekk rek euh, engagement sur l'honneur xëy na war nañu gën a renseigner fiche bi ba pare jël ay conséquences maanaam képp koñ fi fal même buñ la falee ñu gis ne ginnaaw gi da nga nëbboon ne yow da nga am beneen nationalité da nga war a perte mandat même boo dee président de la république waaye loolu leneen luy ñëw si kanam Euh, li ci des nag euh, fàtte naa li nga waxtaan diggante yow ak Ousmane Sonko. waaw yaa ngi naan am na ñu ne daf may jox téléphone am na ku wax loolu amul. Hmm. lu amul. lan moo euh, loolu amul li am mooy ñi yàgg ñaan na président def kem kattanam ngir juboo am ci réew mi kilifa diine yu du du benn du ñaar woo nañu ma sàkku nañu ko ay kilifa politique sàkku nañu ko société civile sàkku nañu ko. ñëpp ñu bëgg jàmm ci réew mi sàkku nañu ko kon ñooñu nag bu ñu doxee ba yàlla def tey ji booleeg élection yi ni mu demee circonstance ñëw na ah yaakaar naa ne dañu war a dem si direction boobu avant moom ñeneen bénéficier nañ fi grâce après seen condamnation même démarche bi moo ko indi woon apaisement dialogue moo waxtaan ba ñu yegg si loolu kon loolu du lu bees si Sénégal te du fi mujj tey parce que àdduna mooy doxee noonu nañu vraiment xam ne jot na nag nit ñi tourner la page ku nekk nag am nga sañ-sañ wut mu des yàlla mooy kiy joxe jaarale ko ci askan wi à travers un vote. Mariama Dramé. alors euh, monsieur le président de la république gis nañ mesure yëpp yi nga teg pour apaiser climat pour élection fi am ak jàmm mais à côté de gis nañ tamit sa taxawaay euh, Sénégal ak euh, Afrique ba ci bitim réew tey nak yaa ngi waajal dem ban image nga bëgg a bàyyil Sénégal ak tamit lan mooy sa message yi nga xamante ne mooy communauté internationale bi jërëjëf ah yaakaar naa ne nee nañu saabu du fóot boppam olof Njaay moo ko wax kon man duma mën a wax si image bu ma bëgg a bàyyi Sénégalais yi Sénégalais yi ñoom ñooy xool diiru fukki at ñaar yi ñu fi yi ma fi yàlla dënk réew mi lan laa leen fi bàyyil ban bilan ban liggéey lan moo motul loolu ñoom ñoo koy apprécier li ma xam daal mooy def naa lépp lu mu mënoon def lépp lu doon sama coobare du noflaay du ay nelaw si fukki at ak ñaar yi naa jëluma congé ndax bëgg rek réew mi di dox dox bu gaaw di ko càmbar ngir fi ma bëggoon indi réew mi bu ma paree fa ma koy indi gën fa ma ko jële loolu yaakaar naa ne bu waxtaan amee dinañ ko mën a natt natt bu amul benn sikki sàkk si domaine boo mënti jël kon am na effort yu ñu def waaye effort du doy li des itam mooy réew doxam dafay continuer du luy taxaw maa ngi ñaan yàlla bu ñu fi jógee ginnaaw man kii ñëw yàlla ko xam mu doxal lu ëpp li ma def waaw wala mu def lu toll noonu su ko defee réew mi dina gën a demaat kanam yaakaar naa nag que la ma mënoon man def naa ko malgre situation yi Covid am na fi guerre en Ukraine am na fi jafe-jafe yi am si sous-région bi loolu yëpp dafay impacte loolu li muy métti métti métti terewul dëgg yàlla def nañ suñu kem kattan te loolu livre bilan bi dana ko wane ndax euh, liggéey la boo xam ne ñëpp dañ si teg seen bët euh, li ci def nag moom yàlla rek mooy kuy sottal lépp ñun ay doomu aadama lañu notre travail est perfectible et li ci des nag euh, ñaan yàlla Sénégal continuer doxam gën a jëm kanam Euh, ngir doomu Sénégal ñoom itam gën a gis seen bopp ci mbir yi. ban message leen di jox doomu Sénégal ak ñi nekk bitim réew yi. waaw li may wax waa Sénégal rek mooy santaat leen gërëm leen ndax fukki at ak ñaar du fukki fan ak ñaar du fukki weer ak ñaar fukki at ak ñaar ku la jox confiance ma ñëw nekk opposant ñu jox ma victoire soixante cinq virgule quatre vingt pour cent second tour élection présidentielle ñëw juróom-ñaari at ñu joxaan moom premier tour victoire a cinquante huit virgule vingt six pour cent confiance la confiance boobu nag jàpp naa ne waroon naa ko mérité mérité bi mooy liggéeyal askan wi li nga xam ne def naa ko te ñëpp gis ko ah li des nag mooy ma sant leen gërëm leen te ñaan yàlla ñu continuer itam sàmm réew mi sàmm réew mi nag mooy jiital intérêt réew mi d'abord jiital njëriñu réew mi itam ak ku mënti doon loolu buñ ko defee kenn bañ ñu féewalee ak di indi fitna suñu biir yaakaar naa ne fi Sénégal jëm ah, fu baax lay doon te réew mi nag mag ñu baax dañ ko lal ñaan fi liggéey fi lu tax yàlla mën a sàmm waaye nag malgré loolu yëpp ñun kenn ku nekk si ñun war na sàmm jikkoom sàmm ay kàddoom sàmm ay jëfam ba nga xam ne réew mi si jàmm lay nekk ak salaam ñu gëm yàlla yitam xam ne moom mooy ki may nguur te kum ko bëgg a may amul ku la ko mën a xañ ci àdduna kum ko bëggul may amul loo mën a def ba mën ko jot kon nañu boole lépp nag si rafetal ci ngor bu ko defee jàmm ne ñooy Sénégal jëm kanam. ñaari président bind nga lettre mooy ak Abdoulaye Wade une lettre conjointe pour laaj na réew mi dal parce que ñoom amoon nañu ay jafe-jafe bu ñu nekkee opposition. Hmm. Abdoulaye Wade plusieurs reprises Abdou dogal na kaso génne ko ñu toog waxtaan parce que ñoom Sénégal la ñuy gën a jiital dañuy wax. envoyé lettre ba toute la classe politique sénégalaise ngeen sàmm réew bi yow ban jéego nga bëgg a def ci loolu pour ñu gën a sàmm jàmm ji ci réew mi. ñoom ña ñoom. président wax na loolu. non non sàmm euh, naa peut-être que. non non juste ma gërëm quand même ñaari suñu ñaari mag yooyu suñu ñaari bàyyi yooyu d'ailleurs président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade ku nekk si ñoom réew mi jox na la boppam ay diir ku nekk si ñoom it liggéey na liggéey bu am solo kon bu ñu nekkatee ay mag. jël kàddu yooyu ñun dañ koy dëggal di ci dox mooy li ñuy def nii fexe ba jàmm am ci réew mi Sénégal jëm kanam donc adversité politique warul tax ñu dem ba yàq ñi nga xam ne ñoo ko bokk donc ay leçons yu am solo la yu ñu joxe ma jàpp ko euh, di leen ci sant di leen ci gërëm. peut-être juste le volet multilatéral bi moo doon deuxième partie question. waaw euh, Sénégal nag boo gisee yàlla dimbale ñu ba ñu liggéey fi li ñu fi liggéey yëpp. donte sunu biir koom-koomu réew jéego yu bare bare def nañ ko si ndax budget yi daanaka li ci ëpp solo tey téeméer boo jël presque juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett juróom-ñett fukk ci suñu recette bopp la kon liggéey nañu bu baax a baax waaye xam nga recette looy jot weer ba weer la donc mënoo si gaaw di développer foog nga am ñu lay lebal xaalis ngay liggéey loolu mooy partenaire au développement maa ngi leen di sant di leen gërëm si nii ñu ma gunge partenaire yëpp nag ndax Sénégal bi ma ñëwee ba tey jii lu ëpp fukki junni ak ñeent ñeenti junni quatorze mille sept cent milliards engagé nañ ko ci ay financement pour le développement fukki at ñaar yi ko jiitu loolu mu ngi nekkoon si ñetti junni ak ñeent trois mille quatre cent milliards kon booy xool presque quatre fois ci volume def nañ ko looloo tax nag foo ñëw si Sénégal tey nga gis ay piste wala forage wala courant wala ay tali ay autoroute ay train tout ça mooy liggéey boobu loolu confiance la kon damay sant partenaires yi ni ñu ma gunge ñu gungewaat ko Sénégal ëllëg ki fi toog ndax suñu développement réew mën a gën a jëm kanam may santaan nag waa réew mi rawatina kilifa diine yi kilifa aada yi leader politique société civile patronat ak syndicat yi chef de village yi mboolem askan wi si ni mu bindoo maa ngi leen di sant di leen gërëm si confiance bi ak waa diaspora bi euh, vraiment maa ngi sant suñu borom li ma li ma li ma dese rek si sant ak di ñaan mooy ñu continuer def transition bi jàmm am Sénégal su boobaa yaakaar naa ne sama ñaan dina nangu. Merci, Excellence, euh, Président de la République, Djeredjef. Euh, merci à mes confrères et consoeurs. sama natango Yakham Mbaye directeur général Soleil Mamadou Diallo Seneweb Alassane Samba Diop euh, E-Media E-Radio Mariama Dramé RTS1 Radio Télévision du Sénégal merci Excellence merci à tout le personnel